du sama xarit bi ak euh, ñiy seetaan di siyaare papis bu baax a baax démb ma ko fàtte maa ngi koy siyaare bu baax di siyaare euh, waa ñi ci technique bi di siyaare mbooloo rek incha allah bii dinaa ñëwaat tuuti ci kanam. ak ay secret yu am solo. léegi kay lay doon <laughs> xam naa am embouteillage bi ci tali bi moo la moo la moo la moo la jàpp fi mu ne nii ku am say soxla boo teelut a jóg. Ah, gëm naa ne doo teel a àgg fi nga jëm. mais de 3 heures laa ah, départ c'est normal c'est normal heure bii day nekk heure de bouchon nit ñi dañuy wàcc dañuy dem seen dañuy ñibbi. Mm-hmm. dañuy génn li jënd seen ay mbir balaa ñoo dog et donc c'est normal tali bi xat alors tey secret yi ci lan lay lan lay lan lay àddoo. waa secret yi ñu gars yi ñu ngi demande secret yu jëm ci wàllu euh, bët yu métti dafa bari ñoo xam ne dalee na dal mm. te mën naa méttee ñun nu nekk waaye secret bi ma ciy bëgg a joxe euh, képp koo xam ni soxna Aysa def na ko yàlla mën na ko leeral ndax yonent yàlla yanqoo ba ku ne xam na ni euh, suñ borom nattoo woon na ko silmaxa waaye wax nañ ni boroom xam-xam yi wax na ni ba mu ko jëfandikoo suñu boroom ci la ko may ay gët yi leer nañ naññ ah, na ko ñëpp déglu eh, ñu ngi ko toxale nag ci sëtub ku baax a baax koo xam ni sëtub sëñ Omar Foutiyu la Taal mu nit ku baax mi ngi fi nag te nee na mi ngi ko jëlee woon ci maamam te mu ngi ko jële woon ci sëtub yonante bi alayhi salaatu wasalaam na Abdullahi ibnu Abbas kon eh, képp koo xam ni danga bind law anzalna law anzalna haza qur'anu ala jabalin law anzalna haza qur'anu ala jabalin foofu rek nga yem nga bind ko juróom-ñaari yoon nee na nga jël ko nga boole ko ndoxu sam-sam maanaam moom koy defee saafara ci nga koy xooj nga di ci sëlmu suba ak ngoon bu fekkee sax maanaam dara daru la doo silmaxa mukk ci say ci sa àdduna bu fekkee ne koo xam ne ay bëtam da doon metti su ko defee maanaam yàlla mën naa leeral ay gëtam ba mu leer nañ ñi kon ñu waxaat ko muy lu ama am solo nga xam ne nee nañ yonte yàlla yanqoo ba loolu moo leeral ay bëtam law anzalna aza quraanun ala jabalin nga bind ko juróom-ñaari yoon xooje ko ndoxu sam-sam su ko defee nga di ko sëlmoo suba ak ngoon ah, bu fekkee xobi yi nebedaay da nga am bët yu métti waaw nga jël ko nga boxoñ ko wala nga dëbb ko bu fekkee dafa xaw a mu tooy nee naan booy tëdd nga def ko ci say bët lu bët yi lëndëm lëndëm boo xëyee dana leer boo ko ciy def nag dana saf tuuti. foo koy def ci boor bi. waaw da nga koy da nga koy tuufaayoo rek. xob yi waaw xob yi. dina saf de. dana saf mais saf googu muy saf mooy dindi dangaru mettit bii métti. <laughs> waaw <laughs> ah, loolu moom loolu moom euh, lu siiw la ñi nga xam ni sax dañuy jaay ay garabu olof. Hmm. Euh, mu siiw na lool ci faj ay bët yu métti waaw am na ñoo xam ni faju nañ ci ba tàyyi waaye pour ñi ko xamul rek xobi nebedaay boo ko dee moqat bi ba mu nooy say bët di métti nii wala mu lëndëm wala nga mel ni booy gis muy fulu boo ko ci dee def da koy leeral dina xaw a saf tuuti mais saf googu muy saf. moo da koy saafara. Hmm. waaw pittax yi naaw soo ko rendee. sa defee na benn fan la ñaari fan wala da ngay sax nga ko def diiru trois jours. ñetti ñetti fan ngay nga koy traité bu ko defee nga bàyyi ngay am bët yi nga bëgg mu leer nañ ñi muy li am am solo. pitax euh, dereetu pitax wax na ni képp koo xam ni da nga koo da koo tuufaayoo. dereet dereetu pitax nga rendi pitax ni hmm. waxuma la pitaxu àll pitaxu pison yi den ci kër yi de pitax yi ne ci àll bi. soo ko rendee deret ji nga wut loo nga wut foo ko dénk nga bàyyi bay tëdd nga wut loo ci dénk nga def ci say bët noonu say bët di xonke fekkee xam nga ñaar nit ki bëtam buy metti ay bëtam léeg-léeg day xonk di am ay laas léegi deretu pitax yooyu pitax moomu nga ciy def noonu muy xonke boo xëyee boo sël moo noonu lay dindewaale mbooleem lu ci bokkutoon kon loolu secret la boo xam ne secret bu nëbbu la nag xam ni bari na ñuy déglu mën naa am ci mën leen ko mos a déggee waaye mag ñi ah, daan nañ ci fajoo boo demee te ci alxuraan fa kasaf na anka xitaa ah, nga bind ko bu ko defee nga boole kook da koy boo ko boo jëlee saafara si nga def ko saafara ba pare parce que fa kasaf na anka xitaa da nga koy bind juróom-ñaari yoon nga def ko saafara saafara soosu nga raxase ko ab signeel signeel mën naa yeen du ngeen ko xam aysa xam nga signal lañ koy dégg rek. signal day ay dégg ci ginnaaw. porc épic tey pourtant am na Touba bari na fa lool guddi gi boo dee dox sax da ngay dajeek ñoom leer gi dañuy génn léegi boo bindee saafara si ba pare nga raxase ko ab siñel mhm. fa kasaf naa an ka googu nga bind ko juróom-ñaari yoon nga def ko saafara. Mhm. saafara si nga sange ko ab signal maanaam danga jël ab signal nga dugal ko ci ci siwo. jël saafara si sotti ko ko mm-hmm. bu defee signal bi day tooy xepp ci saafara si nga nga génnewaat signal bi loolu soo koy sëlmoo insha allah rabbi wax na ni boo silma xawoon sax suñu borom mën naa leeral say bët mm-hmm. macha allah yooyu lañ ci indi woon ci wàllu leeral. am na solo jërëjëf Fawzeyni ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci euh, ma bàyyi la nga tàggatook ak mbokk yi. Hmm? waaw mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ni. Euh, sunu borom dafa wax ci alxuraan yaa ayyuhal lazina amanu kunu ansaara lillah boo demee ci sóortu safi mu ni yéen ñi nga xam ni yéen a gëm yàlla kunoo nekk leen ansaara lillah di dimbali yàlla te in tansurullah yansurukum ku dimbali yàlla yàlla dimbali la loolu moo tax te dimbali yàlla soxna Isa dafa mat a leeral mm. ndax am na ñoo xam ne bu ñu déggee dimbali yàlla day mel ni yàlla dafa lottu ba ñu koy dimbali te dimbali yàlla li muy firi mooy dimbali sa bopp dimbali sa bopp maanaam mooy li yàlla santaane ci jaamam yi nga di si góor góorlu loolu mënees na alxuraan mën na koo waxee dimbali yàlla waaye lañ lan la cay fay lépp ci yow la jëm si waat kon man kaana lillaahi kaana laahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la ah, te nit ku nekk li muy liggéey ci lay liggéeyal yàlla moo tax secret yi nga xam ne ay xeeti sekkare yoo xam nit ki mën na koo dégg ba bisim réew fu nekk dégg ko seetaan sa TV defal ko boppam képp koo xam ni rek jot nga ci weexal bi mooy nga ñaanal ma ñaanalaale waa palaato bi yépp incha allah sunu yéene ci yéen euh, ñu mën koo eggale saa su nekk ndax alxuraan mooy téere bi nga xam ni yow miy wër lu doy nga ñëw fekk lu doy nga ñëw fekk alxuraan jàpp ko Sëñ Tuubaa nee na fekk nga lu doy nga doyloo ko kon yow mi wër lu doy boo ñëwee ci alxuraan lépp looy saafara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa wax ni laxat kaana fi fi rasulillahi iswatun hasana bind naa muhammadu rasulillahi mi yéen mbindeef yépp ma def ko mu doon seen idol ngeen war di xool ci moom di ko roy lépp lu mu daan saafara ci alxuraan la ko daan saafara sëñ nga xam ni moo ko fi donn ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësuñu koo déggee fu mu demee hôpital moo ni daan na feebar luy dal nit daan na ko dal ndax nit la waaye lépp lu ko mosaan dal rek soxna Aysa day day dellu ci téere bu tedd bi alxuraan gëm gi mu koy gëm nag moo tax ndax mbir mu ngi aju ci gëm mbir boo ko dee def di ci am sikk sàkka ndax dina ma fajam du ma faj bu ko def waaye képp ku gëm alxuraan moom lépp loo bëgg ci alxuraan alxuraan mën na la koo defal. merci. waaw man Mouhamadou Lamine Fawzeyni borom secret yi lépp lu ma am soxna Aysa ci alxuraan laa ko amee kon foofu la ñuy wàccee sunu kàddu euh, di wax ni képp koo xam ne rek da nga bëgg am ay leeral da nga am laajoo ci laaj da nga ñuy woowaat ci 78 530 69 81 78 530 69 81 salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam jërëjëf ñu ngi lay bu baax a baax Amadou maa ngi lay jaajëfal. merci beaucoup maa ngi lay bu baax a baax Aïcha di ñaanal ñëpp ñu ndogu ci jàmm ak salaam. Mhm. Pape Regine na nga bàyyi micro bi dégg nga. dévissé nga ko. <laughs> micro bi ngay jël di ci fooy. ah on se donne rendez-vous demain incha allah ah merci beaucoup à la team jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi des leen ak ñun programme bi dafay daal di wéy dama leen proposer ngeen seetaan benn clip et juste après ñu dikkaat ci plateau bi.